di gunal day garam di way ak sant soxna si ñépp xam ñu naan soxna jaara soxna jaara bégal nga àddina wóor na yaa nu jox say xi bamba jaara ma jaara jaaratullaahi mooy turam wañu tan jaamu yàlla ak léegi may soxna jaara sellaadin astakal ko mam jaara mi ma ko mam jaara bu samata poroxaan jigéen jë tiim jigéen jëmin yoonu aras moo tiim jigéenu xërnu bi mam jaara wursu sellaay nas takkal ko maam jaara ma gis jigéen jamiin yoonu aras moo tiim jigéenu xarnu bi mooy yaay xaadimul xadim bigil na yàlla may karim buso yow wa jaara laa yariime du jeex ay busa jàngal nga maayu xarnu waa sant Faye ñu ngi leen di siyaar bu baax waa lii nag maanaam bañ ko dara def yàgg na ak suñu benn mbokk taalibe bi ñuy wax Fallou Kébé waaw Fallou Kébé moom mooy lycée lii moom mooy def lii waaw chaque année nii lay def def ay xéwal ñuy xaar jaamu yàlla yi muy dem ñu leen koy jox waaw maanaam ku ñëw xéwlu loolu lañ koy doxal chaque année ci lañ nekk dégg moo tax ñu ngi koy ñaanal yàlla yokk ay xéwalam ndax yàlla parce que lii yombul waaw li yombul kii suñ kilifa la sax xam naa ne kii laa lay bàyyi parce que man ma nekk ci liggéey bi léegi Badou yeggale ko. Ah, ah, ah, comme ni ngeen ko gisee lii yéen a ko gisandoo seen bopp nekk la loo xamante ne chaque année ñu def ko te kenn dong la li mu yéeme nag dafa nekk koo xamante ne si ma jàlli wuñu cotisé wuñu dajale wuñu kenn nit moo koy def at mu ne kenn na waaw lii royukaay la boo xamante ne Ah, borom ñu ko man war nañ koy def waaye eh, ci moom rek lañ ko mën si gisee koo xamante ne si course seluloo kenn laajul kenn du at ba at du dara moom kenn nit moo koy def chaque année te yàlla nga ko ciy dimbal te koy gën a man am na ko man nag loo xamante ne si mën nañ koy def nañu roy waa ji sama waa ji suñ fàllu kebe vraiment dañ koy ñaanal yàlla jëlu ñaanal sax ndax mu nit ki mooy ñaanal boppam loo def ci lu baax ci sëñ Touba ah ci lislaam yàlla la koy fay yàlla nga koy fay ñu ngi koy gis ñun ñi nekk fii itam ñu ngi ci gis suñu bopp waaw li ko yàlla wërsëgale ñu ngi ci gis suñu bopp du fii rek de ñëpp nag waaw kon dañuy sant yàlla di ko sant yàlla di ñaan yàlla nag barke bi yàlla taas ñu ci yàlla na ko may barke yàlla nga koy may sax yàlla na ko yàlla dolli waaw ñun ñi fi ne itam yàlla ci yàlla taas ci barke borom Touba. tàngal na xarnu bi xaroon na gaal tàngal kafe moo tax armuwaal du leen jafe moo tax ñëpp ambu dikke fii jaara sigil na jaara xarnu bee yaara bi du juddu yaa gorte yaa ami may maam jaara bargil gi silli cosaan maam jaara tulaay soror ya ca makka ak soror te ca madina baytil muqaddas ana tuuba minallahi sëb liggéey tëx ba doom wala fii denc ay million te seeni maam mësu ko maam jaaratulaay yaa rafetu dundu maam jaara maam jaara maam jaara yaa dis yaa ami barkeel nga sili cosaan maam jaaratu laay di ko nal day garam di way ak sant si ñépp xam ñu naan soxna jaara soxna jaara bégal nga àddina wóor na yaa nu jox say xi bamba jaara ma jaara jaaratullaahi mooy turam wañu tan jaamu yàlla ak léegi ko may soxna jaara